nañu ne su fekkente ne jàppalente leen defu leen te daamoon defu leen solidarité baynakum seen diggante wala boog bay na naa naxnul muslimoon bu fekkente ne loolu amut mu ne jamono dana ñëw ba nga xamee ne mbalitum puuxet yi sax moo leen di ëpp doole loolu wax yonent bi la te yegsi nañ ca léegi lu ñu def rek ay caaxaan lañ koy jeexale te loolu amul benn solo jàngaat naa fi benn aaya ne taxsibuhum jamian wa qulubuhum shatta firi mi dafa jafe ndax zalika bi xaw xawmun laa yanqiluun zalika bi annahum xawmun laa yanqiluun la tax yàlla boole nu ba noppi mënuñoo ànd suñu xol yi mel na safara ak caas amuñu benn objectif l'islam bu ñu mën a ànd booloo ca seytaane mën nañu te war nañoo xoolaat kilifa diine yi ñu dajaloo waxtaan kilifa yi nga xam ne ñoo fi yore war aada ñu dajaloo waxtaan seet itam benn objectif principal boo xam ne bi dañ naan lii la ñuy def ñëpp ànd ca ndax kër réew mi kenn ku ne am na loo gëm ñii ña nga ca tarixa sàngam ñële ña nga ca tarixa beneen ñooñu ñëpp nag tey am nañ kilifa te kilifa yooyu nag amaana bu la waxee noonu bu fekkee suñu kàddu soriwut itam ah am na kilifa yooyu ñoom bu la waxee xëy na des na leen déglu parce que li wér te wér mooy am na ci ñooñ lu seen kilifa wax daañu ko def li ñàkk li li li kenn mënta xam daal mooy ku amul kilifa ku amul kilifa moom seytaane rek mooy sa kilifa yàlla mi nga ñuy wax ci alxuraan ne ñi nga xam ne ñoo ko gëm rek ñi ko ñi ko gëm mooy seen kilifa waaye ñi ko gëmut ñoom taaxuut te taaxuut bu ma ko firee fii mën naa fee fanaan moo tax yàlla wax nañu allahu waliyu lazina amanu yuxrijuhum min azulumat ila nuur walazina kafaru awliyaahum taaxuut la yàlla waxoon ci alxuraan awliyaahum taaxuut moo tax yuxrijuunahum la wax xam nga fële dafa ne yuxrijuhum fi nag yuxrijuunahum ndax mbooloo lañuy ñuy doon te dañ leen di réeral rek waaw min na nuur ila zulumat jële leen ci ak leer jëmale leen ci ak lëndëm yàlla dafa wax ne ñi nga xam ne dañ maa jox seen demande dañoo dañ maa jox seen cummukaay man may seen responsable man may seen kilifa ñooñu moom am naa fulla ju toll ne jële leen ci lëndëm yóbbu leen ci leer waaye gars yi nga xamee ne dañoo ëppal topp xuut moo mën a xam kilifa la goo xam ne kii xëy na fam war a orienté taaliba ya wala njaboot ga orienté wu leen fa kooku mën nañ ko tuddee taaxuut dama tàmbali léegi wax ne xulil xaq walaw kaana ala nafsika wala ba xulil xaq walaw kaana murran taaxuut mooy képp koo xam ne kii boo ko toppee mu bewal la ci ci déggin yàlla nag na ñooñu amuñu amuñu président amuñu kilifa te kat seen kilifa yooyu ñu topp noonu mën naa nekk sax seen bakkan bu la neexee mu ne ñooñu nag loolee ñu topp lu dul yàlla dafa leen di jële ci leer jëma leen ci ak lëndëm léegi nag nañu seet ak lëndëm leer lu ci ëpp njariñ amul fenn fu yàlla waxee ne ak lëndëm moo ëpp doole ak leer yàlla nag noonu la tëggee jumla bi wax ne nag ñi nga xam ne ñoom man la ñu wéeru ci man maay seen kilifa moo tax am na it ñoo xam ne ñi gannaaw yàlla am na ñu nu gëm wala boog buñ leen gëmul itam am na ñooñ seen xol seen yaakaar ca foofa la ne ñooñee di déglu ñooña ñeniy dégloonte am nañu déglu gun war a dégloonte seen biir ba jàmm war a mën a am ci sunu diggante ñun ñëpp yàlla dogal itam eh, ci baalonte xàq bi ndax tey jii amul waxtaan dama ñëw woon nañu ñëw rek léeg-léeg ñu def tafsir boo xam ne bi ñu dugg ci alxuraan génnaat ci tuuti waxtaan ak ñi nga xamee ne ñoo ni seetaan fi nu toll nii eh, ku amul kilifa doo nit dafa am benn kilifa bu wax ne ku am kilifa doo gàggantikoo ci mbedd Serigne si Ahmed Tidiane Sy yal na yàlla dolli ay fanam bu baree bari dafa wax ne ku am kilifa doo gàggantikoo ci mbedd kon kenn ku nekk sa kilifa war nga koo dékk nopp nag su ko defee nag itam lam lay wax itam yàlla na yàlla dogal mu dëppoo ak li nga xamee ne moo nekk tëraliinu yonent bi ak ku mën a doon moo tax yow ma nad'u kulla unaasin bi imaamihim la yàlla waxoon ci alquranul karim yow ma nad'u kulla unaasin bi imaamihim xeet wu ne wala nit ku ne wala nation bu nekk wala ay doomu aadama yu nekk bisa ngi nii boo xam ne bii danaa leen fànq te su ma leen fànqee itam rappel bi may def maa ngi leen di woo ci tuuru lañ nga xam ne ci la ñu wéeru woon la nga xam ne moo leen doon orienté ca lool rek laa leen di woowee moo tax ku yabu ku yabu fagaru ku yabu ku yabu ku yabu fagaru euh, parce que li fi nekk daf koo jëratut te àddina bi euh, mbumbaay mi ak puuxit mi tax nañu fàtte yu baree baree bari dafa am ilaa ay na ji na maanaam bu ma doon laaj dama naan fan la ñu jógee wa ilaa ay nal masir fan la ñu dox jëm muy ñaari laaj ba léegi amaguñ ci tontu xam naa ne nag leer na nañ ñi waaye seytaane dafa fëkk sunu xel yi ba nga xamee ne du ñu xam fan la ñu jógee fàtte nañu responsabilité yéen amoon foofu le fàtte nañ li ñu yàlla waxoon ba léegi dikk nañ ci biir àddina nag am na fu lu dox jëm te moo di ilaa yomal xiyaama boobu moom sóoraale ko ndax dañoo jàpp ne ku dee rek dem nga léegi nag àddina bi moom day continuer ilaa yomal xiyaama déedéet déedéet àddina bi du continuer mukk parce que bu doon continuer ci misaal léeg-léeg nga gis am taax ñu tabax ko fii ci biir Ndakaaru nga daw ngay daw di daw ba mu yàgg nga jaaraat ca taax ma dootoo ko fekk ñu def fa leneen la ko fa jëlee te nit doo nga ko fa jëlee boo laajee ñu ne la ah bërëb bële day immeuble sangama fa nekkoon léegi nag ay jardin la ñu ko def wala waa ana immeuble ba dem na yàlla itam noonu la joxee misaal waxee ne àddina bii ni ma ko tëralee def ko lu mel ne ak laltu ngeen nekk ci euh, fam suuf menake bi ngeen dox ci ci kaw suuf si yàlla nee na noonu lay jékki-jékkiwaat mel na ak basan ko def ko ba mu jekk ma sëpp ko daal di nag soppi suuf si danaa am bis boo xar bi danaa soppi suuf si mu nekk leneen loolu alxuraan la su ko defee nag bu kere leneen la nag beneen mbir la euh, xameelu sunu borom la yàlla nag bu keroogee la muy def rek moom mooy daat neen ne nag kaay leen bu nu dikkee nag dana nu xisaab waaw xisaab nag mooy la waxkat ba waxoon ne boroom xam-xam ba wala boog euh, na ngeen xisaab seen bopp bala ñu leen a xisaab eh, te bu nu ñëwee itam daañu laaj tamit lu baree baree baree bari waaw ñu laaj lu baree baree bari te daa ñu tontu itam te it kenn mënta ñàkk bañ a tontu kon nag ku yebu rek fexe ba am la sama turóon da waxoon Seydi Hadji Malick Sy su keroogee bu ñu def misaan yi yal na yàlla boole nu ci misaan yi nga xamee ne dañuy kawe lool diis lool ba nga xamee ne euh, ci kan ko yaakaare du kenn ku dul ki nga xamee ne moom moo di euh, yonent bi sallallahu taala alayhi wa sallam loolu dem nañ ci ba nga xamee ne ñi nga xam ne sax dañoo nekk ay borom alal Euh, ci ci ni leen seytaane fëkke ni ma waxee ne seytaane dañoo fëkk ba bu nu waree du ñu def lu dul warite gi fecc lañ koy tëje wala fecc lañ koy jeexatale te mënoon nañ cee jàng alxuraan mënoon nañ cee wàcce kaamil baa boog ñu dem jàng ci ay xasida xasida bu mu mën a doon mu xam bu Cheikhul Khadim bu Sidi Hadji Malick nit ku baax ku mu mën a doon rek la mu wax tagg ca yonent ba wala keneen koo xam jaadu woon na lool waaye nag ay yeneen lañ koy jeexatale parce que seytaane moo nu man yàlla itam noonu la waxtaanee noonu la waxee ak ñi nga xam ne dañoo am alal te alal ja buñ koy joxee dañ koy joxe ngir puukare waaw eh, eh, jox naa diw oto waaye su ma sañoon waa quartier bi yëpp xam ne maa ko may oto bi yàlla nee na ñooñu dañuy fontoo nit ñi rek waaw parce que fàtte nañ ne man mi leen di jox ba ma leen di jox feeñu ma ne leen man ne leen maa ngi ni man suñu borom maa jox kii nangam waaw lu tax yàlla defu ko yow nga bëgg ko def ci quartier bi loolu moo ñu yàqal sunu problème yu am yëpp allazina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillah su summa laa yutbiuuna maa an anfaqu man na wala azan lahum ajruhum inda rabbihim wala xawfun alayhim wala hum yaxzanun ñooña moom bu ñu sarxee wala bu ñu joxee la ñu am bu ñu noppee dañ naan pataaral du ñu bëgg sax ku ko dégg duñ ca toggal azan duñ ko ci def wala man na am na ñoo xam ne ngistal wala de xeetu xeetu maa fi def lii wala ñu siiwal ko waaw te yonent bi nee na booy sarxee sax sa loxo ndeyjoor bii di joxe sa loxo càmmooñ bi waru ko yëg yàlla nee na ñay def loolu ci taraanga ak sutura kenn xamalu leen ko maa leen yoreel ak fay ëllëg ajran ajruhum inda rabbihim seenuk fay ci seen borom lañ koy fekk te bu keroogee dafay nekk fay gu mat fukk fay goo xam ne gii yàlla ku ko lebal benn mu fay la fukk wala xawfun alayhim wala hum yaxsanun buñ amatu lu ñuy tiit bu buñ amatu lu ñuy ragal njaqare moom danaa ko rocc ci seen xol ba nga xam ne àddina bi lu mu ñagas ñagas seen dënn yi njàqare dootu ci nekkati ñooña ñay joxe ngir yàlla tax ngay ñay joxe te